assemblée générale bi ñu amal ñom transporteur yi nek ci dëkk bu sell bi di Touba amu ñu mbégte ben yoon ci seen président sortant bi di Idi ay tuuma yu mak lañu jël wéku ko ci mbagam ci juuj njaaj ak yorin gu sellul teyit ñu nongu mu leen di jité ci élection yi nga xamé né mom lañu ñu euh le président sortant mom def na bilan euh bilan bi mu def nak vraiment ñun dañu ci am kersa sax bi ñu ko déggé ndax dañoo japp né Euh, waroon nañoo présenter lu gën fuuf li nga xamante ne bii moom la ñu présenté ndax boo xoolee en 2014 bi ñuy commencé mën nañ euh, jàpp ne euh, li ñu démarré woon ci xaalis rek ñoom bi ñuy commencé bi presque waxuñu ko te loolu rek c' une somme de de de de de neuf cinquante neuf millions trois cent mille yoo xamante ne bii ay papier la yu ñu composé woon bon ne patrimoine regroupement bi toll na noonu. Euh, nga xamante ne bii xaalis espèce am na lu ñu ci présenté woon am na lu ñu présenté woon ci xaalis bu nekk ci compte bi plus euh, li nga xamante ne bii moom la ñu liggéey ci mandat bii. mandat bii nag wax dëgg yàlla ñun dañoo jàpp ne liggéeyuñu ñoom ndax li tax liggéeyuñu mooy tey boo jëloon par exemple orel yi nga xamante ne bii ñoom ñooy dem diggante jawbe ak euh, Touba. par exemple nga jël ci treize yi nga xamante am nañ piste fixe. treize yooyu benn oto bu nekk mu ngi joxe quinze mille francs quinze mille francs yooyu boo ko mu chaque lundi daf lay jox treize multiplié par quinze daf lay jox euh, cent quatre vingt quinze mille euh, boo ko multiplié boo ko multiplié woon par quatre lundi multiplié ko par euh, douze mois multiplié par cinq loolu rek daf lay jox une somme de quarante six millions huit cent mille nga jëloon supposons tey horaires yi nga xamante ne bi ñoom ñooy dem Dakar Touba Eh, par exemple nga jëlone 30 horaires rek 30 horaires li boko multiplier par 10.000 def lay jox 300000 francs par jour nga multiplier ko par 30 multiplier par 12 multiplier par 5 ans yi lolu aussi def lay jox 500 euh, 40 millions de francs CFA nga xam ñaari montant yoy rek boko bolé def lay jox 586 millions 800.000, euh, sans pour autant nak li nga bi ay bien la Euh, vraiment yoo xamante ne bii xaalis daf fay génnee. teyit li nga xamee ne statut bi ak règlement intérieur bi wax na ko moom Idi Ka mu waatoon ko ci kanamu mbooloo mi amul dara lu nga xamee ne def na ko ci. li nga xam ne mooy lënt-lënt yi ñu gis ci biir doxalin wi ñu laaj ko ci mu andil ñu ciy tontu mais à notre grande surprise dañoo gis ne bépp question boo xam ne posé woon nañ ko ko rek yëpp da ko daw te mu doon doonoon question yu crédible yoo xam ne askan wi yitte woon nañ ko askan wi soxla nañ ci ku ci leeral. bi ci jiitu mooy ginnaaw moom bi mu faloo dafa taxaw waat ci assemblée générale xamal askan wi ne lépp loo xam ne statut bi santaane na ko lépp ci wàcc lenn danaa ci dox sama te assemblée bi wax ne président bi yow dañ la nommé mais nag ne la chaque fin du mois na nga woote benn réunion de bureau boo xam ne PV de réunion bureau bi day doon loo xam président bi da koy signé ak secrétaire bi nga xamné ci 5 ans yi 60 mois la kon tey waroon nañ ñoo présenter 60 réunions de bureau ta ben amu ci. ni mom dañ ko faloon déjà mu wacc yoon yi di bour di bumi di doxale ni ko neexee te aussi tey ñu doon xaar ben rapport bo xamné rapport financier bo xamné ndax euh, structure bu melni comme euh, suñu GIE bi rapport financier bi da doon bax ki nga xamné moy le trésorier général moko wara def. ñu gis né tay trésorier général bi dafa absenté wu ndax lan bañ ko nommé.

am sunu alal nous xamné dégg na ko ci banque bi lepp ci ay millions yu bari ñi dégg 20 millions la ñu laaj ko ci question bi pour mu tontu ñu ci ndax tay occasion la ndax taxaw carte grise mu occasion na mëna carte grise yi ngir tuuma bobu ñukoy que mën bu amut benen bi ci top moy dañoo dëgmal ay élection tayit mom xamné def na recensement askan ne leen andil leen ma seen i carte parce que sous-préfet dafa ubbi benn commission boo xam ne inscription la waroon doon ak vérification pour erreur yi ne ci fichier bi ñu mën koo defaraat avant le jour J moom ci la profité d'occasion nax askan wi ne leen yónnee leen ma seen i carte mu bindul leen ñooñu ak confiance bi ñu am ci moom en tant que le président ñu jël seen i carte jox ko benn bindulu leen ñaar vérifié lu leen téye seen i carte mu doon loo xam ne nag dañ ci alerter autorité yi

nga dem ñibbi sa kër ba jour élection nga ñëw voté librement. ba tax na ñoo ngi lancé un appel solennel ci autorités yi nga xamante ne bii mooy les autorités administratives ak les autorités étatiques ci ñu xam ne euh, suñu gaaru ceer bii am na ay failles yu bari yoo xamante ne bii moom régime bii nga xam ñoom ñoo fi nekk jiite ko. ñoom ñoo ñu ko teg. ci pàttali élection yi nga xamee ne moom la ñu mal benn fan la ci weeru décembre waaye ñoom transporteur yi di xamle ne doy na dootuñu nangu ak notel te moom Idika buur la jàppee woon boppam.